internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. seneinfo.net. internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaar tey mardi di janvier ñu tàmbale kook xibaaru biir réew larme bu Sénégal ñàkk nañ benn soldat ci jàmmarloo yoo xam ne nag mu ngi doon am ci diggante ñoom ak ñoo xam ne dañoo yori ngànnaay fële ca Nord Sindian ca Casamance bu ñu sukkandikoo nag suñu naataango yu waa RFM nga xam ne ñoo joxe bi lay xibaar ñu ne nag am na ñeenti soldat xam ne itam am nañ ca ay gaañu gaañu wante nag njort nañ ne ña nga xam ne ñoom ñoo. loru ci geneen wet ga maanaam ñi yori ngànnaay yooyu la euh, njort nañ ne kon ñoom ñoo gën a euh, bëri ba léegi suñu naataango waa RFM bi xam le kon armée bu Sénégal day wëyal opération de sécurisation yooyu xam ne mu ngi koy foofu foofule ca Nord Sindia te sax di ca taalaka yàq ay euh, tooli yamba yoo xam ne kon rebelle yi ñoom ñoo ko fa amaloon premier ministre bu Sénégal Amadou Ba démb nag euh, sol na dàllam dem fa fële nga xam ne fa la accident bi amee woon ca Sakal ba nag lu toll si ñaar fukki nit ak ñaar su ñàkk ci seen bakkan moom nag nee na nekk nii nguurug Sénégal jër na matuwaay yi war ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo si am ay gaañu gaañu ñu mu leen toppatoo bu baax a baax. xibaaru Afrique euh, dañ koy tàmbaleek Guinée équatoriale foofa nag euh, doomu président de la république bay wuyoo Ruslan Obiang-Sow moom nag euh, la ñu teg loxo yóbbu ko nag ci ab résidence surveillée gannaaw bi nga xamee ne daal dañoo njortu ne kon moom dafa jaay ab avion boo xam ne kon dafa bokk ci compagnie. nationalu dëkk ba euh, loolu nag mu ngi am sax ci jamono joo xam ne kon dafa am benn avion boo xam ne daal daf leen réeroon bu tudd ATR 72 500 nga xam ne kon compagnie euh, nationale ba moom moo ko moomoon kon ci biir loolu nag lañ doon amal ab enquête ba teg ko loxo. réew réewum Afrique du Sud nag ay coupure courant yu yàgg kon euh, te gudd am fa euh, lu toll ay weer boobaak léegi loolu nag tax ba ay parti opposition jóg ak ay syndicats yoo xam ne kon dañuy représenter daal ay entreprise ñoom nag daal euh, nee nañ nguur gi kon na def lu mu mën ngir coupure yooyu dakk fii ak janvier deux mille fii ak janvier kon fii ak le vingt janvier nee nañ kon le 20 janvier bi rek la may nguur gi ngir daal mu dakkal yooyu les coupures électricité ndax nee nañ lu ko mooy dinañ ko yóbbu ci yoon. xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy nag euh, réewum Chine ñoom nag ci atum deux mille vingt deux bi dañoo gis ne seen population dafa wàññeeku ñoom ñi nga xam ne sax ñoom ñoo ëpp ci àdduna bi loolu nag muy lu njëkk depuis mille neuf cent soixante kon ñuy gis ne seen population wàññeeku na euh, bu sukkandikoo nag ci ay euh, demo grave ñu ne nag euh, loolu mën naa euh, laal li nga xam ne mooy seenu koom wante itam système euh, retraite bu dëkk ba mën na caa indi ay njeexital. xibaaru sport lañ koy jeexale Zarko ak Ada Fass nag CNG daf leen teg daan yu métti gannaaw bi nga xamee ne nag kon seen combat bi weesu dimanche dañ caa dépassé temps ba nga xam ne kon moom lañ leen mayoon ngir ñu def seen i préparatif mystique ak yi ni mel ñoom nag dañ caa jël ba jël ci lu ëpp trente minutes loolu nag tax kon ba waa CNG. teg yooyu le daan muy un an at boo xam ne kon dañ leen di suspendre kon daanaka ñoom saison bi dootuñ ca euh, bëre bu weesoo nag suspension boobu itam li nga xam ne moom mooy seen reliquat ñu ne dinañ ca am luñ ca euh, foqati loolu ñëw tey ci xibaaru seen teewlu lañ jox di ci ëllëg yaa ngeen